asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu asbaxnaa wa asbaxa almulku lillahi walhamdulillahi laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli sheyin qadir raditu billahi rabba wa bilislami diinan wa bimuhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyan wa rasula اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك falaka alhamdu walaka shukur mbokk yi safoo laa RTS rawatina ñi ñuy topp ci jotaayu biddeewu xeet wi ñu ngi amati mbégte di janoo ak yéen di ànd ak yéen niñ koy defee saa su nekk ziyaara ji kilifay diine yi sukk fa suñuy woom toog si seen keppaar tàllal suñuy loxo sàkku ci ñoom ñaan di leen lit ñoom tamit yal na leen yàlla subhanahu wa taala sàmm yal na leen yàlla wott yal na leen yàlla aar yal na leen yàlla subhanahu wa nangul effort yi nga xamante ne moom la ñuy def pour taxawu diine ji ci biir réewum Sénégal ak ci kaw suuf niki noonu tamit noonee la ñuy ziyaare kilifay réew mi ñaanal leen borom bi subhanahu wa taala yal na leen yàlla taxaw yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla aar yal na leen yàlla booleeg bitaana saaliha muy ay àndandoo yu baax ñoo xamante ne dañ leen di xelal ci dëgg di leen ci gunge niki noonu la ñuy ziyaare kilifay kër gi la RTS ñu ngi leen di ñaanal borom bi subhanahu wa taala yal na dolle taxawu leen yal yàlla defal leen tawfiq ba lii leen dénk ci liggéey bu am solo bi yàlla subhanahu wa defal leen ci ndam naal yi nga xamante ne naal nañ ko pour jëmmal liggéeyu kër gi jëmale ko ci kanam yàlla na leen si yàlla subhanahu wa taala defal ndam yàlla defal leen ci tawfiq niki noonu tamit la ñuy ziyaare képp koo xamante ne moo di agent ci biir kër gi di la ñaanal borom bi subhanahu wa ak foo munti yëngatu yal na la yàlla subhanahu wa taxawu defal la tawfiq sàmm la sàmm sa njaboot barkel la sak am-am noonee la ñuy ziyaar ñi nga xamante ne ñoo nekk ci hôpitaux yi ñaanal leen borom bi subhaanahu wa taala yal na yàlla fëgg seeni bopp yal na yàlla delloo leen aafiya may leen wér gu mat sëkk goo xamante ne du bàyyi benn jàngoro ci seeni yaram ñi nga xamante ne ñu ngi waaj di xëy ñi nga xamante ne ñoo toog ci kaw ci kaw sijaada yi di wird ñoom ñëpp yal na leen yàlla sal yal na leen yàlla subhaanahu wa nangul li nga xamante ne moom mooy seeni ñaan yàlla may ñu ñu yendoog jàmm mbokk yi toujours ñu ngi ànd ak sunu biddeew di ñaareelu xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di amirul muminina umar ibn alxataabi radiallahu anhu tey ñu ngi jukki jaamoom moom umar na mu doon jaamoo yàlla subhaanahu wa taala ni mu bàyyi woon xel alaxira nga xamante ne dadaan daan góorgóorlu ci jaamu borom bi subhaanahu omar ànd ak niñ ko gisee mu doon gouverner yittewoo mbiru jullit ñi ci lu rëy ak ci lu tuuti ci lu mag ak ci lu ndaw noone la bàyyi woon xel ne ci kaw yoonu tukki la nekk tukki goo xamante ne ku ki utul yóbbal boo fay yóbbaale bo moytul boo yegsee bu nit ñi di tekki doo tekki tukki googu moom mooy tukki gi nga xamante ni dañoo jaar ci kaw suuf pour préparer tukki googu mooy tuxu fii nii dem ci àllaaxira dem ci jannatu naim yàlla ñu ko yàlla subhanahu wa taala defal Omar nag daa teel a xam ni adduna gi jaar-jaar la woo xamante ne doomi aadama bi daf ciy wut yóbbal gu koy permettre ci yoonu tukkeem ga muy tukki jëm àllaaxira mu mun cee am lu mu yóbbaale moo tax musul sàggane jaamu borom bi subhaanahu wa taala omar ibn alxataabi radiallahu anhu ce que xam ngeen ne woorkat la mhm. la woon rawatina ci fanam yi nga xamante ni moo mujj ci dundam da daan bëri lu mu daan woor moom omar ibn alxataabi radiallahu anhu niki noonu tamit jullikatu guddi guddi la woon danaan yeewu guddi di naafila daan yee li nga xamante ne moom mooy njabootam daanul naafila moom kase mais da daan yee waa këram yee soxnaam yee njaboot ñi di wax li yàlla subhanahu wa taala wax ci biir alquran wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha nangay sant di diggal sa njaboot sa waa kër ci julli te na nga sax muñ ci yoon boobu xam ngeen ne yee njaboot gi soññu leen ci julli léeg-léeg njaboot gi soofantal la moo tax soo àndut ak muñ gu gudd léeg dangay da ngay tay daal leen di bërgël bàyyi leen ci li nga xamante ne moom mooy li leen neex mais yàlla subhanahu wa taala dafay wax ne wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha na ngay digal sa njaboot li nga xamante ni moom mooy julli te ji julli googee nang ci santaane googee na ci sax muñ ci Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu mbokk yi bis dañ ko musa wax ne lu tax doo nelaw parce que bëccëg bi mu ngi yittewoo li nga xamante ni moom mooy mbiru population bi yittewoo mbiru askan wi guddi gi muy yitte woo mbiri boppam ci ci ban anam la doon yitte woo mbiru boppam mu ne bu guddi jotaan day jël li nga xamante ne moom mooy sajaadaam di naafila pour préparer li nga xamante ne moom mooy yoonu tukki googe moo tax bis ñu ne ko waa yow Omar lu tax dooy nelaw yërëmal sa bopp ngay nelaw mu ne leen la naawal ay nelaw ci sama biir samay gët moo dina bëccëg bi mënumaa nelaw parce que maa ngi dox ci soxlay askan wi guddi bu ma nelawee man may sànk sama bopp parce que du ma liggéeyal sama allaxira allahu akbar ida nimtu binnahaar daat raiyati wala in nimtu billayli daat nafsi su ma nelawee bëccëg damay sànk askan wi su ma nelawee guddi sama bopp lay sànk parce que duma waajal tukki gi nga xamante ne moom lay tukki Umar ibn ci biir jaamu googu mu doon jaamu di góorgóorlu di def de des actes d'adoration di jaamu borom bi subhanahu wa taala ànd ak loolu yëpp da doon tënku ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi fàttaliku ci bind yi ne keroog ba mu ñëwee di foon xajarul aswad dakaa wax ne ko xam naa ne xeer nga munoo lor kenn munoo jëriñ kenn bu dul woon gis gima gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di la foon kon duma la foon di wane ne la tax mu foon xajarul aswad mooy gis gi gis yonent bi alayhi wa mu di ko foon mu roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niki noonu tamit naafi dafa nettali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa ci jamonoom dafa am benn garab woo xam ne fala jaayante woon ak saxaaba yi yàlla subhaanahu wa taala garab googee ci biir alquran laqad radiya allahu an almuminina id yubaayicuunaka taxta alshajara bi sang bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna nit ñi dañ daan faral di dem ci bërëbu garab googee di fa jullee ngir ne garab la goo xamante yonent bi sallallahu alayhi wa toogoon na ci keppaar gi yàlla subhaanahu wa taala mentionné ci biir alquran li nga xamante ne moom mooy garab googu ak toogaay googu jotaay boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax wane ne ña fa toogoon ñëpp yàlla gërëm na leen nit ñi daan dem di julli ci li nga xamante ne moom mooy garab googu ci keppaar gi xibaar yi di dox di dox ba yegsi ci Umar ibn al-Khattabi anhu mu jàjji nit ñi tere leen ko daa di santaane ñu gor garab gi la tax moo di ne da doon ragal génération yi ñëw bu yàggee ñu jàpp ne garab googee am na lu muy jëriñ wala am na lu muy lor parce que xam ngeen ne toujours aw mbir buy doog a tàmbali ña ka dinañ xam lu tax mais lu muy gën dem di gën di dem intention ba ak objectif ba muy am li nga xamante ne moom mooy aku wëlbati ba nit ñi dootuñu xamati lan moo sababoon mbir mi am mbokk yu baax yi omar ibn alxataabi radiallahu anhu ca dëggu ga ca ragal yàlla ga ca mën a jaamu boroomam subhaanahu wa taala ci xër ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci bañ a juyoog wéetal borom bi subhaanahu wa taala ci ragal li nga xamante ne moom mooy bokkaale Omar moomee ànd loolu yëpp ci jëflanteeg doomi aadama yi nekkoon na koo xamante ne ku tabe la woon moom Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ku tabe la woon moom Omar ibn al-Khattabi anhu boroomi teraanga moom Omar ibn al-Khattabi anhu Omar ku tab la woon ku mënoon a joxe ñu ngi fàttaliku am na bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woo saxaaba yi ridwanullahi alayhim ci ku nekk génnee alalam indi parce que am na soxla bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am te faawu ñu génnee alal pour soxla boobu mun a faju saxaaba yi ku nekk dem dugg si sa biir kër Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba mu ñëwee genn wàllu alalam yépp la indi jóoral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen ngi imaginer sa alal li nga am ci alal ci am-am nga xaaj ko ci digg bi nga xaaj ko ci digg bi indi genn wàll gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen a ngi fàttaliku ci sunu jotaay ak Abu Bakr na Siddiq ne ñoom ñaar dañ doon njëkkalante ci mbaax moo tax ci istuwar bii nii Omar da indi genn wàllu alalam sang bi Aboubacar ne Siddiq indi alalam yëpp muy montré ne ñii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaroon ñu yaroo ci keppaaram nekk bi deewu xeet wi di niit ñu tablan ñoo xamante ne ci keppaaru ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que yonent bi yar ñu ngi fàttaliku moom yan sang bi sallallahu alayhi wa sallam ku tab la woon comme ni ko sunu maam El Hadj Malick waxee wa kaana asxa nnaasi asjaahum moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama moo nekk ki gën a tab ci nit ñi ki leen gën a jàmbaare danaan joxe moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ngay dégg ku naan daw leen gaaw ngeen tuubi ci muhammad ngir ne muhammad ku tab la dafay maye di joxe joxinuk ku ragalul li nga xamante ne moom mooy ñàkk ñii ñooy biddeewu xeet wi ñii ñoo yaroo ci keppaaruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis omar ibn dañ koo indil alal ju bëri mu saam ko jóor ko séddale ko ba ba muy jug ci jotaay bi dara desul kii mooy omar ibn alxataabi radiallahu anhu li nga xamante ne moom mooy suñuy programme jeexul yeneen a ngi ñëw ci kanam bu leen toxal seenuk seetaan suba incha allah ci beneen jotaay ñu àndaat ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu